Saliou laa dégg écoliers qui pétrole yi ñu sonn la. qui pétrole la foi au peuple la foi au peuple. Let's go. man maa gën a

man Pape Ndiaye laa tudd maa ngi dëkk Pikine Ikopa citoyen laa Pikine laa jigéen nguur gi amuñu lu baax dañoo sonn dañoo sonn trop moom loolu moo ma indi fii ay ay Pikine laa dëkk dañoo sonn bis bu ñu doxal ci biir bànn la ñoo xam lu ñuy dund billaay walaay dañoo sonn ñu torop lekk ñu naan lekk mu naan ma ñu jox ay suñu 400000 yokku ko suñu xaalis la ñëw. toll nag génn nañu. toll daal boo